ñëwal Adama kaay ñëwal. Balla Gaye 2 mu ngi noonu. gannaaw bu ma ngi noonu. ndeysaan xol bi gerte la xol kala muy def. Balla Gaye ngay xiiral oto bi. ndeysaan doomu duba lees la. teraanga làmba ku may li ndeysaan boo am jom moom Balla Gaye 2. ndeysaan sama xel dem na ci tàkkusaan ba nga xamante ni moom la doon bëreeg Yaxya Jóob ni sama xel dem na ci tàkkusaan ba mu doon bëreeg Bombardier yi sama xel dem na ci tàkkusaan bi nga xamante ni doon na ko bëreeg Modou Lo ey gay Gaye moom mooy xale bi nga xamante ni bi mu dugg see ci làmb ba tey fi babaam solo dàllam fa la ko teg moom Balla Gaye 2 mu ngi noonu ndeysaan def ko costume tey gisuma supporteru Balla gay waaye xam naa ne seen xol sedd na ndax bu mbër bu làmb wootee ñu gis Balla Gaye 2 ñëw duñ ne guleet te mbokk Sénégal làmb ngi noonu ndeysaan xoloma Balla Gaye macha allah Balla Gaye moo am jom xale baa ngi noonu de ndeysaan gis nga presse bi gaa yaa ngi ñëw ngir di xaar ki nga xamante ni mooy Balla gay 2 hey Balla ndeysaan. Ah, ndeysaan damaa bëgg rek ma fii tey te xam <laughs> ah, ma jël bal jëla ah. buur. Eh waay <laughs> non non moom. Arma Balla Gaye 2 ngay wàcc. ndeysaan Balla Gaye 2 wàcc na. ma nga noonu ndaysaan bala gay 2 mais Adama mosuma xam ne Balla Gaye costume lii la ko jàppee. laa ilaaha illallaah monsieur la ministre ah Balla Gaye ndaysaan ma ngay laal sel bi del ko xool ma nga noonu. mais sant yàlla bàyyi ci jàmm. mais mais mais dama dama gis léegi ngeen def benn mobilisation bu doy waar. Mhm. ci wàllu lamb ngeen war a def tey conférence de presse. Mhm. Euh, tey naka ngeen gisee bés beeg lu ngeen ci nar ak lu ngeen di wax ñooy amateuru lamb yi. waaw d'abord sant rek xam nga liñ ci war rek moom lañ def. Euh, dañoo ñëw pour waxtaanee lamb. Mhm. en même temps dekkil lamb. ñoom euh, groupe association da littéral en donc président bi di Gris Bordeaux mbër yëpp teew war cee waaw war ci xel yi Balla Gaye de yàlla liiru liir maa ngay booba ah liiru def nga kos Voilà. ci li mu wax monument bi daanu na Balla Gaye Balla seen monument bi day jooy monument bi jooy mosuma ko sama

ndeysaan waa ji du ko bëgg te ni koy gisee nii ndeysaan xolal waa ji rek Balla Gaye 2 ndeysaan Balla Gaye gi loolu Balla Gaye gi noonu et vous, vous. Bombardier ngi ci suuf